alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al-mursalin wan ni'mati al-mursalin nabiyina wa xalilina muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain mbokk yi ci masal loolu sant suñu borom subhanahu wa taala loolu koy itam di ko baal di ko kay ni mu tolloo ak markaayam ak karawaayam ak kër yi boo xam ne suñu borom sori na ko lépp ak i ay yëngu maanaam maanaam di ko wax na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam subhaana laa nuxsii sanaatan alayka anta kamaa athnayta ala nafsik yonent bi dañu mos a sant su borom sant bu kawe bokk na lan la ñu yàqale yow yaa subhaana suñu mën a sant la yow yàlla mun ne ay yàlla ñu wax mbokk ñu wax sax laa nuxsii sanaatan alayka mun laa sant tagg boo xam ne dana toll wala lu yemoo ak ñi la may bi ak ñi la tawee ndax mbokk yi xam ngeen su fekkee malaa lañ ci bor bi nga xam ñoom du ñu ko may du ñu nelaw du ñu xiif du ñu tëlee du ñu lekk du ñu naan du ñu naan du ñu mooy yàlla su fekkee ñoom suñu borom bi leen ñu leer su mën nañ tànki ba ak say jub dañu ci ko jaamu du ñu ko may Allah suñu bopp dañuy bàyyi suñu borom mooy subhanak maa raddaaka xaqa ibaadati dëgg dëgg teel a ñaanal yàlla ni nga màgge ni nga xamee nga xamee noonu ni nga xamee nga moom lépp ni nga xamee nga teewee noonu bir nañu jaamuwul la ni nga waroon a jaam su fekkee balaa ngaa wax ko ko mu su nit waa wax wax yàlla ba wax subhanak innaa kakkal laa nuxsi lana alay ñu ñu laa ak yow yàlla ba tamit ci tolloo ni nga màgge ni nga xamee ni nga def mooy malaaka moom ant kama asnayta ala nafsi ñi nga taggee sa bopp ñu ngi wax loolee la nga taggee sa bopp ñu ngi jëfandikoo loolee dama taggee ndax yow yaa ngi gën a xam mbokk yi yàlla su ko ba yëlee lu ko jëlee ay at lu ëpp at ba jege ñaari at mu ngi nag nag di leer comme boo xam ne mooy sabila na jaar mooy gaal mooy gaal sax sax E, daal la ko mooy daal bu rox ci jamono yi boobu gis na ci yàlla ni képp ku teyee kooku dafa gudd la ci wóor su ko waaye képp ku ko wóor la ko ko àll lay doon xam xam seetal bi nga xam mu ne yàlla yéene lépp lu ci war lu ci ko xam wala lu am yenn ci keneen ko xam loola nga xam dafa ngay ci sa xol tànn loola dafa ko wóor bu mag ci mooy wax ko bi daal waaye mooy wax ko bi daal kii tàmbali dafa war a tàmbali waaye ku jeexal ba jàpp ngay ngay demee daal da ngay jeexal fii ne ñu am suñu tàmbali la ngay tàmbali mooy mooy ñaari baat yi nga xam ne la ilaha illa allah képp koo xam ne wax nga leen lu wuuteeg nii mooy lu ñu la ko tuddee te une fois yéen yàlla da ngeen lu waay mën a mel ci kàddu bu dee yàlla su ma kàddu bi mu wax ne la ilaha illa allah bu dee li ñu mën jaamu suñu borom foofu la war a mën a doon suñu yàlla yàlla def suñuy fànn ci suñu dund nekk laa ilaaha illallah wax ni kon ni maanaam laa ilaaha illallah kii mooy yàlla bu nekk ñu ñu koy wax waaye ku faral di def laa ilaaha illallah ba tey ñun suñu daawa moom ci sa def ko ñu yee ku ay laaj ay arab arab yi ñu toll ak nangam moo tax nangam nangam déedéet loolu amul sànq ci yéen waaye bu ñu gisee lu mën a jëriñ wax ko laa ilaaha illallah lislaam kat bu ñu wonee ñaata baat la da ngay fekk ñaar fukki arab la ak ñeent mbokk yi ñaar fukki arab ak ñeent mu ngi toog rek ñaar fukki waxtu ak ñeent ñu leen kat leen dégg suba gi ñu wax loolu xam lan lay dégg lan lay wax mooy suñu borom dañ ak seen xel mooy li nga vingt quatre heures bi nga am mooy toog nekk vingt quatre weer yi ko ko laa ilaha illallah kon bu taxal ko mu mukk lu ko lay yàlla kon baat boobu lay wax bi fan ko lay ak li nga xam ne mooy doom yi nga xam yooyu mooy juróom bi moo doon ji sunu ko dëgëree am na topp bu am solo ci topp yi gën a mujj muy bàmmee nag nga xam ne nit ki xam ko di ko waajal loolu bokk ci li gën a noppal ak xolam bu naree xam mu mu yeewal tey yi ñu waxtaan ci dund ñaareel bi balaa ñooy yéegi gis nañ ne seen ndax bu njëkk bi moo gën a nekk muy am xayaatul barzaxiya dundu barzax muy magaral wolof bi tuddee barsax barsax wala biir la donte arab la ndax wolof yi neen mooy gar sax-sax kon kenn bëggul ko ak kenn benn kër yi day ñu demee jàll bu ñu góobee suñu dugub bi ba koy mën nañ koo def def sax na war nga jël ko mu nee na sax waaye naa ne buñ tuddee gar barsax mooy gar sax-sax comme moom boobu kenn ku nekk sax bopp la ndax doo yeew la sa morom du ngeen moom ñu ne suuf mbaa du ngeen moom suuf boo ngeen keneen ngeen di suuf mbokk yi te xalaat yi ñuy bokk ci li ñoom dañ ko xol di ko delloo waat ci yàlla subhanahu wa taala barka ndax nit ñi ak jëm yàlla ñu xam na lan mooy barka barka mooy wax yi mooy xayaatam li ko góor te xooba mooy naar yi dund te ñu xaaral ci loolu loo xam la xaaral ci ñu def leen la jaaxal mooy dina ñaareel balaa ñoo yegg ci dina ñetteel loolu allah yi ndax ñett ñu yor ñu ñu ci dina xaalis dina barna dina allah bokk koo xam ne mooy kër ya nga xam ne mooy kër yu wóoree comme ñu wax wax ba koy wa inna daara aaxira la jëm ayawaan donc daara yaa bu ñu bu ñu ko waxee allah yaa wala yaa sax amee yooyu nga xam boobu xam ne nga jaar boo wootee ak sa kàddu bopp ba kenn loo ji ndax ku nekk di tudd bi ñu dégg ko sa kenn ku nekk ma nga lu ma koy soxla lu wute ñu ñu wax di woon ak i sàmm ak i wax yoo xam ne yu suur la ko fas lool suufam ko ci ci la bu nekk te nag li gën a mooy ay bare nga fa ay yéen nga fa ay màngat nga fa ñu mën dara nga fa ñu mën dara nga fa yi ko ñu nga fa ñu jël bakkan sax soo ci dugg ci kaw suuf ne la xam nga bëri woon ay soxna yoo xam ne amoon nga ko te tey jii day ba ngay ko ñoom bu soo mën a bëgg a dàqali ko ñoom tey jii day bu góoree kat moom la ne la baax nañ daal di daal sore nga ñoom lool tey nag yaa ngi koy ñalu di wala nga ci ñalu yaa ngi koy ñalu di ko xalaat te kat wa inna ma wax ji ñu ne ci xamal ne bi bu ci di la ba ci la baax la ñu waaye ci nekk nii li nga gën a dugg mooy sore moom ay détails bëgg koo ngay gisante bëgg koo ngay wax bu fekkee nee nga bëgg lu bëri da baax lu la neex kon am na bari ku nekk ci kaw suuf nekk sore nag daawul sàmm léegi digganteem ak boromam daawul sàmm digganteem ak ay moromam tey nag ba mu dëgër yóbbu ko ci ay moromam wax ci ay kàmb wala ak kàmb daal di ko koy suul tàngee ko benn tàngaay yéen képp koo xam ne bu ci mën a jàppale. moom li muy def ay laal dëkk maana dëkk ko maana su ma bëgg wala sama mooy alal bi muy bari bari bari bari dara du ko dëkk ko ci musul nekk te yéen yi ñu koy laal sa takkaay yi ñu koy laal sa daal yi ñu koy laal sa baba yi ñu koy laal loo amul ci koy laal dara du ko ci wàllu ko alal bi ñoo di am tey daa ma ci yàlla bi ci suñu ñàkk muus mooy boo xam ne alal yi daa ko doon gënal alal ñu ngi koy yàlla naka la ñuy gën a fonkee alal yi daa ko bàyyi alal mu moom kay yéen ñii seen alal yi alal yi daa ko doon gën a fonkee mu ne ñu ne ko loolu bu demee mu yow li nga nekk di ko baax man dafa nekk nekkal dañ laa ko moom loolu la fonkee mu ne jéem leen boo dee yëpp nga xam ne la war a doon yokk waaye li nekk ak commencement daal li ko ñàkk a nekk nekk lu ci ci yàlla loola yaakaar na koo kaw bi dugg naa man de ñu jëlee xaar bi ñu jëlaat la la la xanaa ñu ñàkk a dëgg rek sax xam nañu ko jëlee lu jëlee naa boo ko dara lu ko ñu jël daal la xel boo ko dund ci kaw ci suñu bopp te nekk benn jëlee naa jëlee xaw naa mën a yéen suba nga sol bi tey nga sol bi aada ñu koy góor ci ko xam xoolal ñu koo xam ni moom sa yéen jadi melalui tangga ini. Eh, tangga ini bukan apa. Jadi melalui tangga. Tangga itu bukan. Jadi dalam pengalaman sudah orang lain dalam tangga itu. Mujur, mujur tangga itu bukan. Ini tangga yang mujur, romer sepak bola ini, bahkan bahkan sepak bola ini, mujur sepak bola ini bukan. Ini tangga yang polis. Kan, bukan, bukan, bukan dari. Bukan dari orang orang di sini berjudi. wala boog ñu tàggee ñu lépp lu dee mën a def ñaareel bi ñu mënaat ko ñetteel leen muy ëpp ndax muy wër ci tànk yi dafa kaw ñu tax dañu ñu faakaat lan ko may rek lan ko yëg lan ko fay def dara bi yëpp ñu ko def defal la yéen si defal la ma xool ndax tey rek ma dara lu xam lu wax wala dañu ñu ko bëri baal te it ko gëm ci la am góor ci yéen ko dëgg ak jërë ji gën ci sa yaram yi ak faj faj ak faj dana ko yàq lan lañ xam lu ñu xam kenn di leen ko daw yéen ko gaaw a yàq ndax doo ko suñu te ñu koy yàq doo ko nangu ba nga gis jigéen boo xam ne lu ko gën a gën a sax biir kooku la kuy sax lu moo ko gën a sax waaye xawal ma ko la nekkoon si xar nga xam ne daal nekk suñu borom la ci nangu xalaat al kay ma xam naka la leen mu tudd jigéen naa ndax dafa ci lu xol ñu ngi ci xol xol bu jigéen la ci waa alxuraan dañ xamal ci kaw xutali ba mu daal ko loo koy laaj ngeen loolu nag xale ne ko doon tóoyal xale ne ko doon sax xamuñu sax xale ne ko doon defal ay dàllam xale ne ko doon defal ay ay ay ay ay yéen xale ne ko doon bind ay jumtukaay xale ne ko doon réparé ay matériel ñu ñëpp réer nañ ko tey ñaata xam ne ci xabu bi loolu moom su ko mos yàlla rek moom xam subhanahu wa taala dana ko jël ay bi ko kiyee ci maa dama dëgg yéen bëri nga xam ne bokk ci li mu gën a doon ndaxte barakaam la nga xam mooy nit ki la ko ba léegi mu tëj ko nga génn la dëgg boobu kii xaataa yéen ñu ne yéen a wàññi bële yëpp raaf na waaw kër gi yow dina am baax lii day ku am nekk ku nekk na rek moom day mboole relation yi amoon yëpp ku kër ndax xëy na xëy na dina ku kër boo ñu laajte rek la amoon ak yéen waaye dina ma xaaral wala xaaral maa ngi maa ngi dana ci xale ji dem nañ ci niveau koo xam ne daa war a jëfandikoo yi naan ba ku nekk ci fekk nañ jëfandikoo yi naan waxaa bi wax pour dem nañ tey yéen ak bés ak lal ñu ngi dee gaal dale ko tey te su lal dañ ko yéene te lal te suuf tamit dëpp am na nag ubbil nañ ko bunt boo xam ne mooy wane yow lépp lu ñu bëgg a xawal moom Fatou Seye war na la kon léegi borom xel yi war na la waaj a xam ne lii de amul benn wala situation bi daal di jeex nga yéex suñu bopp jiw alaaka fekk nañu yéen loolu waxtaan bi wax ala wa kama shajja'ta lawman janaazatan fa'lam bi annaka qad shajja'ta comme ni ngay yéenoo ay ay ñeent yu jub xamal ni bis bu ne ñëw yow la ñu yéen loolu kon saa war nañu dañu baax a waajal ko Elhamdülillah. Ama bu yarın iman etsin büyük dinlerle. Ne kılık var? Ne kılık kullanmalar? Ve amca eyvahlar, vücut nidamla neyle ilan edilir? Kokuluyor. Koylar sana kadar ayet celale ve kumulini bilmiyorsun ki. Erişilir. Subhane yolun celale ilan edilir. Lama amca celale ve kumulini bilmiyorsun ki. Hakim okudur. waaye léegi ci ku amul ko ay xalaat moom ñu ko dal ko la ci mu lay rabbina ala ma dalla wa khaba ma ngay doon doon net ci lu xam ci ay ci ci ko ci yàlla su lan na ko am la zaay ma ay ko la ci ñu gëna bëgg mooy la ne ko ci ci ko ci ci la borom wala jëlu ko sax muy xool na la ak sax la ma al waaye ma annahu kaana yabni ala al-qadri al-islam moom lay nekkati man bu ko yàlla waree la moom la ko xam ne léegi daal la léegi léegi bu ñu koy dugal ko laaj ko léegi nag loolu la am léegi nag jumtukaay jumtukaay yi koy mugalee léegi nag moom la ñu tuddee ci àll kon day la daal mooy képp ku am xel mu laaj ko ci jumtu balaa mu xam léegi ndax comme que ñu yegg ci mbokk bi xamal na ci ak ak mu naa mu jëlee mu xalaat léegi doomu aadama bi faatoo ba léegi ñu fàttali ñu ñu ñëwee nee na léegi dafa ko waajal ko pour yow àll bi muy gis boo xam ne mbokk seen ku ne ci day bari ñu nekk ko xalaat si bopp li gën a dara daw ay bandi mooy saa boo xalaatee gis day ñëw man doom jiw ak jiw maa saa ñu teg ko boo dëgg kan ma tànk ma tëkkal ma teg ma ci kaw gaal war naa jàpp ko yëpp ba ci àll yi suul ma ñu gis di fàq ma fàq wallahi mbokk yi lii bu ko bu dee lenn ci njub bi nga xaw seen mbir loolu dana la jox jaam yàlla yi ma leen defal al mawt haadimu lazzaat nasbata ala ahadin ahli jahanna mooy li ma ko laaj yéen ñu waroon a noos te xam jee da leen jëlee noos jee moo leen jëlee noos ngay bàyyi tamit ci ko seetee ci yoon garab ba ci la yoon ci yoon nekk dana la toog ñaari ay jël ci leen téléphone léegi moom mooy moom sax naka la foo leen mën a àndale ak sa bopp yi lay suul ak sa alal yi la moom moo tax bu ñu nee wër dëkk wër dëkk amul solo lool ndax wër na dëgg yi day jël lu waat keneen la ko yàlla di wax mag bi bu doon ñaan la yàlla la yàlla ko muur loolu ndax muur mooy yaa solo mooy li nga xamante ni da nga lekk jaamoo jaamoo yàlla di yaama wala nga sol jaamoo yàlla di yére wala boog nga tax a ko ci yàlla di la xaaral waaye loolu nag wër na ko ci nekk keneen la mën a def la alal day def waaye bu dee wër alal yi ko mbokk yi loolu la bëgg bëgg bëgg bëgg xale yi xale yi ñu war a wax dégg nga dégg naa ñu wax xale yi dañu doon waaye bu ko jëlee ko baax na déedéet xale yi bu jëlee doon xale bu yeggee ci baax na bëgg bëgg na jëkkër doon ci ko ci ko mu ne ma ko laale ko mu ne ko ci ci xaaral na bëgg na soxlaa ba nga jógee suuf muy ne ma suulaalee foofu doo ko dégg ndax ngay dégg ci ne lii moo ne woon kër gi ci suuf ci ay tax ma amu de xaaral ji ñëw ci lënu amu ci de wa an laysa lil insaani illa ma sa'a mbokk yi nit ñi dañ lay wax yéen daal la wax fekk ngeen a wax bi ngeen wax ku ne am nga maam yu mën a wax kat waaye yàlla yabal maa ngi kenn maam yi mag la yabal ñu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maanaam ñoom ñoo ñu jàngale ci suñu dinañ la moom mooy waaw laysa lil insaani doomu aadama bu nekk sax di bàmmee du ko am illa ma taxaale wa anna sa'yakum lam yakun yawma xayr sawfa yuraa daalika xayran minkum day leede summa yujzaahu al-jazaa al-awfaa yàlla dina la fay ba nga xam ne góoyu la te tegal loolu dund ne la xamee ci ñoom la maanaam tegal loolu dana yàlla boobu su ko defee mbokk yi alal bi jëf moom daa boole lool xam nga baax dafa boole dafa boole lool buy neex ci taxaw buy neex ci taxaw balaa ngay ci ñu ci lay laaj jëf yàlla mooy wala ko faa amalu ay jëfal la moo xam ne si léegi war naa wéy mbokk yi kenn ku ci nekk na nag ñu ko nit la am ay jëf nag wóolu la loolu muy nekk ci la laaj ko am solo dara la kenn ku ne na laaj boppam ndax li ñu la am ci ay jëf doy loolu nag wéetal loolu bu fekkee doy na sax daal di xam ne loolu fadlullah la ci yéen incha bu fekkee doy nañ sa dawal te nga xam ne dawal ci nit ñi nga am ay tànk mbokk yi ci doon amee léegi jëm rek laa xam ne jëm léegi ay nit yoo xam ne léegi mbokk da nga yaakaar ne ci kenn ko xam wallahi da nga yaakaar ne kenn lépp loo xam ne bi nga doon yaa ngi la yéen si loolu day lor ñëw waaye ba léegi day te amaana yàlla borom ba ci la find da ngay noos da ngay lekk da ngay naan wala bu ñu fekkoon ni yàlla da nga bàyyi suñu bopp ni mbirum dee moom dëgg la ci seen biir bopp wóor ni ñi gën a am ne ñu leen gën a leen loolu dañ naan kii kat dee moom gën a dee moom ak kii ko kon bu ñu leen di ko dañuy jàpp ne day teel dafay teel ñu bokk ci ab dëkk ab dëkk la war a am su doon day am ñu fi ko xam ne ñu ne day fonkal sëñ bi yéen a mën a bokk te yéen a war a bokk lu ñu it ma wala wala daal di am ak xam liggéey dafa am lu war a daa am lu xañee ndax ñoom tey ba ñu ko lu mu ne ko imam mali imam abu xanifa ak ay bëgg xaaba ak borom xam-xam yu bëri di kuule ci dañuy tere nag def ay baas ak law ay law yi ñu def daal déedéet jaare ko masaw ko inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun yàlla moom li nga doon boo ko jël mun na ci yàlla yàlla lu ko jël demal ko def fu ngeen nekk ci biir dafa mën ko def la ko daan def mooy demal lu gën a aw ci waaye dañu loo ay def ay baal ay ay nag dafa lu lu loo laaj laaj la leen di daal la am am nañ ak doom ci ni yàlla moo ko asamaan ak suuf di lillahi wa inna ilayhi raaji'uun abadan su fekkoon da koy def ko ci lu doon wala lépp ko la di ndax moo doon wax bu jël critique bu jël critique la nga doon def ko moo doon ci sa yoon bi ni sa ko def sa ko laa ni ni ñu ne law lay waaye yaa solo mooy jàngal bu ñu nga ko yàlla suñu kaw loolu a ngay a ay saxaaba lañ doon faat ay soxnaan di faat ay doom di faat ay gorom di faat ay mbokk yi beneen di faat ñu fonk ko ci julli su ko defee ci julli ñeenti faat la fi def dañu fi ñun juróom ñeenti faat la ko ci gënal man la kaa xale ci juróom juróom benn juróom ñaar ba juróom ñeenti faat la ko ci sunna dellu la ci seen sunna yu wér yu wér la ñu ñeenti wér parce que dañu wax ne saxaaba yi yoo xam juróom ñeenti faat la leen faat te wér kuréel bi ñu gis moom dafa gàmbaar ñoom ñeenti gàmbaar su doon jàngal ba ay gàmbaar dañu naan la moo ko jëlee mu jàngal dama ne loolu ay pôle comme ci islam déedéet alquran lu ñu def ko dañ koy am yéen yàlla day tey ku dal alquran bi am ak ko dal sallallahu alayhi wa sallam toog ci amee toog ci amee dal alquran ci amee ñi def amee ak baare ko ak la ko ko tawee ko yi leen dama def ko waxoon naa ci ko ko ko ñëwee mbokk taw ko ñu mën a léegi baara nañ ko xaj nañ ko kooku ñu ngi ko xaj ngir mën yàlla subhanahu wa taala yàlla du moo ëndal la nekk sama imaam baax ko man baraka ñii suñ dañ ci am ñi baax am ci xala na yàlla am ci kaatal yàlla dina maa def suuf muy ay ñi boor ah yaaran mooy boot ñi dund ca kaw wa am waaran mooy boot ñi dund ca suufam kooku sama kaw bi dina ko def ak ñu mën a def waaye ñu ko xamee def na ko kon loolu suñu tuddee alal te dëgg lépp léegi nag pour jiw yi ñu xamal ñu xamal moom daanaka mooy laaj laaj ndax amul day baax suñu ko loolu la laaj tey ngeen feeru yaakaar suñu ko ci déet moom day baax ba xaw baax ba ko baax su dee des na ne ko produit bi nga baax ne yow ñu nga xam dafa tuuti te xaw nga xam waaye bu fekkee dafa ñu tuuti gàtt ci kër la wallahi ñu ngi loolu ci yéen yàlla ko ñu ko wax alayhi wa sallam comme ñaari yooyu nga jël ci benn la mbokk yi am na ci sa biir al dunya wa al akhirah am na salaata fiha sab'u marrat bakkan dee nga dee ko ci di bëgg sax yu di bëgg sabax mbaax di bëgg warwaale yu gaaw di bëgg alal yu bari di nga dee ci daal wa qad alima te moom moo gën a xam ni am na salaata fiha lay jural daal mu àgg mooy sab'u marrat fiha bàyyi xel ci lan am yëpp لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا الذي كان قبل الموت மனிதன் அல்லாத மூச்சு போதாலும் அல்லாத அவருடைய அமுதமான சகதியை அவர்கள் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் இருப்பது بعد الموت جلاله يذكرها غبرا إلا الذي يذكر في مقام كان يبنيها من الله ليس مخلوق فإن بناها بالخير طاب بانيها وإن بناها بشر خاب بانيها bu dee ay jiyaaba bu dee ay jiyaaba mooy jiyaaba gën a tabaxee sa kër la day ay ñaan waaye bu dee mooy bàkkaar gën a tabaxee sa kër mooy sa xel ñaan amwaal na sunu alal yi nga jëlee li la ñuy raas nekk na ñu suñu alal yi ñuy dajale baa léegi ñun ñi ñuy doon dañuy soxla loolu mooy daal di sonn lii sax jamono. waaw nag sax ko ci sax jamono am ñay sax la jeex jamono dafay déedéet soxla lii sax jamono waaye nekk résolution soxla lii sax jamono. am wàllu alal yi la def li tamit ñi raas ñi waa doon ci kese nag ma ko sax ko yàlla def ma dugg naa suñu li xalaat bi ak ñi ñu aar ñu raasal ko lan ñuy aar wax ñu xamal Hormuz Faaruq yu mel ni ñoom ak alal yu mel lan ko ñu am bu ñu ko yombal ko dara ñu am ko alal ci kaw suuf seen maa ngi dee alal te lu leen jëriñ dara wal xul gaxe naa sax nag qad aawala doon ko jéem aalu bii ah nga xam ni comme sax la ñu doon juróom téeméeri at juróom benn téeméeri at nag sama ay matériel lool te mën a yàq ci montagne ay léegi dëkkuwaay man ashaddu minhum quwwa yàlla naa kan mooy ëpp doole wa amaluha akthara mimma amalu yàlla mooy dundaloon leen kaw suuf ci tey dundal loo xam ne yéen sax déglu dañuy defal dëgg la dëgg la xëy na technologie dina am waaye boo koy gàttalee jaral loolu daal ba tey mu nàkkee ak lan doon def di nga xam ne dund ko am xanaa moom ñu dox ñu am ñaar ay dëkk dëkkal fi aaba ak bu ñu ay 1902 wala 1940 wala 31 si biir nga xamoon ni tabax ko rafet lool alamu am ko xaraaban te ila kuna maa kuna daawatan wa am na kaw tahliya dee yow na saagaagal yëpp dañ yoon ayda muluuk alladi kaana musawwaratan buur yi nga xam ne yàlla dañ ko xool doole ba nga xaajee ah xatta taqaaha bi fekk mawti taaqiha yàlla moom dafa jox malaaka benn saar rek saar bu mu def ko xam borom bu mu téye moom bu dee ba kenn topp di ko poussé rek dafa ko daan naan xam naa aada tuuna yàlla ne ba def ay yaakaar ba toog rek in sa xam naa liiku seen alal fa am na dafa daaw ay naa yi ma alal yi ñoom ñëpp fa jaal naa dum salaman na def ñu ngi ci waaye moom matala ni laa jéeye mu nekk ñi taala mu waaw ñeen ñi nga xam ne yooyu seen jëf muy mbokk yi mbugalu bàmmeel ak xéewal sax ci sunna sax ci alquran sax ci suñ ko borom xam-xam yi daanaka xaw bu ñu ko bu ëllëgee sax dañu bokk ci nit ñi ndax léegi nag ñu koo xam ne taxaw na benn amul ci wax mu naan tàng lool yàlla dañuy wax toujours kaw la dinaa nga téye bañ demee leen def ba yekkal la dañu yàlla wax dane sama ab day dugg dina leen dugal marasana tey ñaari yoon marasana fi lxamri wa marasana fi laaxira dinañ dugal ñaari yoon mu gëm njëkk ma xaar ñu ne ñu koy amee mu gëm ñaari ñu koy amee ci allah comme la yor duur bu ñu paree rek te mu gën bàmmee ma yor suñu yàlla delloo li ila adabin azim ci mu gën nekk moom ko doon yàlla yàlla ko doon suuf yàlla ngay wax ci suuf waa bi wa xaala dalna wa xaala dalna dina dara mu gën di aay bi la amal ci waa dëgg bi la amal ak mbokkam bi la amal ak doon ak nga doon bokk ci tay tay suuf la adab bu gën a am naaru xabar bii ngay dégg ne la yàlla lakkee يعرضون علينا لأننا في وقت قامع النار توازنته يعرضون علينا من كل شخص فرعون في وقت مقيم غدوا مقصوبة وعشية مقصوبة ويوم تقوم الساعة كيف بعد الثمرين يا زلمة فأرجو قبل من هذا الأمر فرعون أشد العذاب فكر الأسود كل ما من ولا يلومه الناس alhamdulilah ñu ngi yàlla bi ne lu ko wóor rek li ñu war yàlla programme yi ñu war a génneel war benn li ñu jéeru ci suñu liggéey yàlla day ñaan rek mu dégg loolu wuti wóoru bànne te bu ko defoon ñu jëkkal ma àlla ay suñu société imam Bukhari mi nekk ci nee sallallahu alayhi wa sallam xadis boo xam ne taali bu guddi moo ko solo li yàlla ne leen néew de ci baatu suñu nekk ci nekk ci ay mag war ko suñu te loolu suñu bopp jël ak yéen di ko def ci oto di tuuri di ko def ci sareet di tuuri déedéet déedéet dañ koy teg loolu de même bu koy woo lu tax ci maanaam léegi suñu woo dañ ko baax saa ay wax waaye amoon de wax amul woon waaye sax ak ci sareet yi mën a wax am na waaye léegi suñu mooy ñu naaw lu ñëw di ko yóbbu loolu moo suñu def te léegi ci def mooy bañ a wax même bu ko la ñëw waaye yow ñu koy yóbbu ñu bañ a wax dara ba ko suñu tax loolu mooy jàngale leen ci soxla te yéen su dee kenn doxal yi bu ma dee ma suul bala saa bu ma dee ma suul sama mbokk yi ma suul ma saa bëri na daal la ñëw ne sa man su paree ko xam xam dal daal kay yu di la suuf su suuf su sell la mu ne ma suuf bu sell waaye yow yaay defee sell ba sellaayu suuf su mu daal la waaye nee naa bon saa yi daal ñu suuf la suuf su baax loolu la dinañ la gis ñu wala ñu ko tout loolu dégg mbir dama mooy xam ne ñu gën a bon te yéefar yoon sol ko yonente bi nañ leen suul te suuf si gën a sell ndax yonente bi ko wax màkk mu ne loolu yaay suuf si gën a sell si suufas yàlla bi su dul woon dañ laa génne kon du ma génn ci laa def ci yow kon loolu amul njëriñ la am njëriñ mooy say jëf ndax moo lay jëriñ yéen yàlla bi neen su fekkee ci waa ji ku baaxoon la ñii baa ngi wax waaye ñun dégg ñu ko ñii baa ngi naan waaye baaw mi waaye yéen ñii def dafa jeex allahu akbar allahu akbar ñii tamit yéen yàlla bi ñëw bàyyi na daaw leen seen sang waaye li ngeen def dafa yéex ndax xéewal bi may seen yéen ma ko dox sama diggante yi moom ne ko naat yéen yàlla bi ngeen ma waaye daaw leen si li ngeen def li ngeen dox dox laa yéex ndax yéen may xañ xéewal damay xam waaye yéen yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam bu yeggee yàlla da koy wan këram ci àljanna wala këram ci kër xawa waaye bu fekkente ni maanaam safaan la woon danañ laa wa ilaha ayna tadhabuuna bi sokkale ñeenam yéen su ngeen la jëmal kan yéen ci yàlla bi ne nag bi ñu koy yóbbu di ko xàmmee ba bañ koy suul kàddu yooyu la wax yàlla yàlla boole ñu sol ci loolu xalaat bi maa ngi yéen ci yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ba léegi nit ki su fekkee dafa faaf ñu teg ko ci kóosu bàmmeel ba tuur ko wan ko gannaaw yéen ci yàlla bi ne yàlla dafa yebal ay malaat fekk ñu jéggi na seen bopp dafa ànd bàyyi mu xalaat ñu loolu def bàyyi mu ñu loolu def bàyyi mu ñu loolu def sama bàmbaay yi ñoom ñëpp ko ci liggéey nga xam ne mu wóor la ñu mën a ci biir suuf yow day ni ko ay gis ni ko ay beneen lu am la ni ma toogee jàkkaarloo ak yéen noonu lay daan gën ay ci jàkkaarloo noonu la gën ay xam ci biir yéen. yéen yàlla nañu ko Allah alayhi wa sallam nee na bu ko defee malaaka yi daan ko gis ak kooram ni ko hey loolu la tubaab yi muy gën a ko am rek sallallahu alayhi wa sallam nee na ci gëm yàlla day ko toog dal lenn ku nekk ci biir xalaat ko bu ci daal yàlla moo koy dëggal man day gëm naa ne ci yonent yàlla laawal suñu borom la moom nag lan la santaane maa borom la te ci mu ngee mu ko xal bu ci daal ak yàlla moom la suñu borom ak ba ci di jàppal ni ñoom leen laal yéen yàlla nee na yàlla daal koy war gërëm ca awal ni ko dégg ko di gërëm gërëm ni ko waaw yàlla dafa la ko bu mu war a nekk xam nga ko ci ñu muy yaa ko màgg ba mu màgg tabax ne koo ngir mu wax àjjana su daal di sëñ Ba ko ñu ñëw Allah kon nag yéen ñu waaye yàlla ne foofu li ñu def yàlla may ko ay soom jëm ko ci àddina wax ñu lan la jël Allah waaye loolu mën na nekk lépp yàlla ne rek ñu gis leen ñaari ko ni àddina day xaw su fekkee ci musiba moo ko naan bopp muy yàlla na lu bëgg yàlla ba ci mutal yéen yàlla ko laajee ñu ko xaaj mais dama leen wax ne la ñu sawar boo liggéey mu gën la dafay sax saxoo du la mën a wéy wallahi loolu leer bi suñ xol muy ñaar wallahi ñu ko xam xel bu fekkee nit naa lu dëgg dëgg dëgg lay dàq te yàlla ne kam la dëgg bi aw ba ala si nii ñaata fan ngeen am ci kaw suuf yow bu la wax ñaata fan ñi naan benn fan ñi naan ñaari fan ñu yàlla ñu sukk lu ñu wax xamul ba fas ali aala ji laa lay mën a waaye moom foofu bi doon ñu am dañ dem ak ah laa la ko liggéey laa ko ko doon waaye li ma laa kay yoo xam ne ko xam dafa xaw ci gën yàlla mu sallallahu alayhi wa sallam foofu bi ko doon ba pare ak xadiis ay ma ay xeeti weñ yoo xam ne ci leer la koy defale mu ngi jéem leen waaye bu xam lu mel ndax loolu leen ma laa koy gën a bu ko ñu leen iman ye bokku gën yàlla mu sallallahu alayhi wa sallam bu ko doole dara ñu ko yu ko xam ne ni ci ni ko billahi la ilaha illa huwa xam nga loolu loolu moom loolu amul benn xam wala xam wala bi wala baax wala gannaaw boo taxawal yàlla sax ko laaj nga ne ko hey gëj daal di yu bu ci defar ne lan lay wax mooy yéeg ci li war a mën a ko yéeg parce que ñoom seen kenn daal di xaaral ma waaye dama la wax ñu ko ko borom xel kon nag ay tegtal yu bëri mbokk yi ay bu bëri bàmmee di waral ci ay yéeg ci kër bu gën a gàtt ramaay ak tóom waxal sa bopp lu ko nekk nekk ko loolu yaatu la wax ñu la ko faram ko waaye bokk na ci liy waral loolu màggal xaritam dañ ñëw gàttal waaye ko jiitu waaye tamit du ko war a war a tuur ndox di nga ndox nga war a laabu bitu ndox ñu ko la ngay dal ci réew yi waaye yéen yàlla dafa wax benn aada yi bitu ndox ñu ko fekk ci moom sax comme wax na ci saaba yi di di jiim ko jiit dina yeegal ci kër ni ko xam ne yaa rasulullah mu ni kan ci moo xam naa ne suul bi nit ñi kenn benn waaye kenn duñu sa xol ko xam naa ne duñu ñu mu ne laa yëngee ñoom ñaar yàlla ñu leen di mbugal mbugal mu mettee mettee mettee mettee nag suñu borom la wax suuf sax ñu la nas li daal di topp daal ne xam ngeen kay lu doon rek ñu réer mu ne moom rambaale ba doon tax ay moom la yàlla fay xam ngeen que li ñu doon bindee muy lan pour ndox bu paree ñu yëngu dafa day bàyyi wax Allah noonu rek mu ngi ci kaw yéen yi ko defee moo xam ne ngay jaamu yàlla moo xam jaamu yàlla jaamu ko yàlla ko am laa la ko xool ndox sama tam day ko am yàlla dafa ci jàngal ñu da laa julli ci yow la bokk na ci yi nga xam ne dañuy indi mu sal loolu ñu ah saa yi naan naa yow ñu xam ne da ngay jaax sa laaj bu baax la yéen yàlla ne ma pour ñu ko war a mbokk yi bu yàlla jàppee ka doon jàpp ka doon jàpp ay tànk ñàkk ko yëpp fii bi ba tee yàlla lakk ko bu yàlla jàppee waa ji dafa dara toog ba waxtu bu ko nee mu doog a bind yàlla lakk ko waaw ba tey ci loolu bi am nit ñi dafa ay mbooloo yoo xam ne nit ñi dañuy ragalee ay tam wala dañuy gis nangam ak tey sababu loolu li am ni ci kuréel yi ñaata la ak ku mën a doon l'islam bi julli la bi yoon ci jël ak koor bi la bi la la yoon ak saa bi kii la kooku jullee bu dee kenn la koo tànn kenn la koo tànn kenn la koo suul buur lañ war sax ci yàlla di tànn ko dafa ñu tànn kay la tànn li la la mun a tudd yéen yàlla bi teeraa na ba bopp bi da ngay takk moom ci bopp bi mel ni julli wala la moom la ko yoon ci suñu biir comme maa ngi wax salaam wa rahmatulah li ñu ñàkk ñu ñu ñu ko def lu tax nit ñu xam ne ko baax nga xam ne lan la waaye dara ñi baax na ñu ñi ko rek lu ci képp ku ñu ci yàlla am ñu ko kon kenn ko ko benn at at yi ñu wax ñu ko tax rawatina ñu lay wax su fekkee ñu am sa tàggee ni ak boo ko wala ñu xam ni ku ñeen la ñu dul ngay nemal la ñu xam sax ko ko ko ko ni ko ko ni ko ko loolu la ko yàlla mënule waaw yàlla dina yàlla bu doon boolee bi bu ma ko bàyyi ko daal bi dina la àgg sax loolu yàlla sax dana ko dee képp ku du jul ak loo mën a xam koo mën ci bokk pour nga bàyyi pour nga mën a am sa jaar bi yéen li ma yàlla yéen ci ko wax nekk ci bokk na ci war a dugal ma rek bokk na ci may war a mooy sant sa gaa bàyyi na la léegi yàlla day képp ku du jëlee àll la nga amoon ci àll la yàlla yéen sax yow la ko yàlla fekk ak xaaral xaw ñaar képp ndax bi nga am ci àddina mu ko doon mooy yàlla day jëriñ ni ak teew yu bëri nga war a defal ba pare defal la ko ay suñu doole ay wóor bokk na sa tariqa ci ñu yàlla bokk na ci am yàlla war bokk na ci dox ay jéego ci fit na am ci diggante ci nit loolu bokk na ci li war a dugg mbaa bokk na ci war a dugg mbaa mooy guddal sa yéene boo gàttalee mu am lu la ak sa dara ñoom ñu ci ñu ci baax ñu ci baax ñeneen ñu am nañ ay sëriñ baax dama ne xoolal li nga xam ne dafa kan nga ci ay yéen bu kan boo ko gisee saa yi ñu ko gis léegi nag maa ngi doon dinaa la commencé yow saa yi la ko te saa yi ñu ngi ci ci ko yéen yàlla su ma ko nee la fekk buumal ay yéen ba mu doon mu door door am wàcc sa suuf bu ko ñaare yàlla après mu xasee laa yem buuru waaw ila salaati muslimina ci buumal yéen mu jëlee suuf laa ko xool da ngay wax nit ñi lii seen borom wax lan ngeen da ngay wax ñu wuute da ngay seen borom wax dafa yaatu lan ngeen wax lii seen borom wax wax ne lii seen yàlla wax yéen a ngi yéen yàlla da ngeen a ko gën moo ci ci yàlla soo mënul waa dëkk soo mënul lu dëkk waaye fexeel ba doy moom doy moom la ko yéene naa sax fan sax bay ni ci naa la ñuy ba dem jëm suuf dem dara ne yàlla la gàccee rek moo ne wala ko soxla nga ci yow sama mu ko ko la rek kii laa tax a dugg ci islam parce que dafa bëggoon a liggéey loolu bokk na ci bëggoon daal lañ. bokk na ci keroog nag nag xamaa la yële ko xamaa la kon ci jamono bi ko ci jigéen ay ay ay yoo xam ne ñi wax ci sëriñ ñoom ñoom ñooy jaay ci wax waaye dara bokk na seen sal alhamdulilah fii moom yaakaar naa ne loolu daal ci fan ndax li nit ñi wute wute yëpp ay gëm-gëm am nañ gëm yi saxaaba yéen ñoom dañ ko war a am kenn du ma billahi ñii ñuy wax ak siira muy xabaar ko suñu xutba woon ay xutba war leen li ñu xam ci ñoom suñu mbir gën na daal di baax a yee ay jamono ci daal di xam xam na ci seen ci la am na jamono benn war xam xam la ko génn génn ci nelaw gis ay yu di ko gis bàmmeel yu ci soxla li nga xam mbir ay ay ay kan ay kan ko la ay kan ko borom ko xamal ko bi ñu lay wax borom ko xamal li ñu ko mooy ko xamal ko sabal ay ko jiwal jiwal jiwal fekk na ñoom ñoo ñu ñi nga xamante ni ñoo ko wax ak wala ñu ci ci di leer ay ci la ci ma ko wax ci dañ ko tax ba xam ko ko ba la wala def ay yeneen ci ci di ko ko ko ko bokk na ci ba sax mooy awal yi ko ci bis boo xamante ni seen mën ci ñoom ñi xaar benn dana ko suli dana ko taw dina suli ay dana ko taw ak ay dafa yaaw wallahi ni xaar ak ni xaar nee na xaaral ci dara la Omar ibn Khattab yéegal biñ ne lii mooy lii comme nag lii sax sax mooy nit ñi ñun dañoo dundee yéegal parce que képp ku sax sax sax bu wuuteeg benn sax yéegal comme nag lii sax sax mooy Abdallah ibn Abbas Abubakar ibn Siddiq Omar ibn Khattab seen waa yi dellu ci wàllu dañuy sunu fekk leen nekk ay ñu fànn leen taw leen surtout man la ñu ci ndax parce que ñoom ñoo gën a jàngale leen am na ci kenn ci maa ngi leen di leen di maanaam lu waay di ci écran bi dégg nga lu wax lu mu wax mu ne yaa war a toog laa la ah foofu la ko waxal ka bii la ee yow yéen ci yàlla yow laa yow la def nga dégg lu mu wax ndax da ngaa faa bàyyi xaw ko yéen ci ñu ci sama ko waxal la ko wax kay wax na ma yi mu yéen ci sant lee doole wala mu ne xamal ci ko waxal loolu kay wax na ma yi mu ma sant lee tànkale réew mi la parce que da ngaa baal bàyyi aw wax yi ci lay wax na la li ñuy wax ci ay wax wallahi li ci gën a rëy ruus na sax nit ki ko wax ci wax moom kon suuf da ay wax rek wax wax dañ koy màggal ba tey bokk na ci kenn ku dul nit ñi dañuy naan yàlla bu Allah ne yaay yàlla na yàlla dekkal ni doon keppaaru sa yàlla di wax ko parce que comme ni yàlla dina la da ngay ci wax ni su kaagee saaga wax saaga wax kooku su génnee yoo xayma mayaal sax ma ne ma ne ko jëlee kenn xamul loolu mënul ko dégg ku saa yéen su ko ko dégg ko ko dégg am na ko la wax ci yéen ba mu dégg ko ko ko dégg sax dama ne yii ma xam ko ma bu ñu leen door a xaw a tey ren ko mu yéen def parce que lii ko ma génn ci sax moo tax saa la xaar xarit ba xaar ko ko dégg laa ne yéen képp kuy tax ko xaar ko ko saa la xamal ni kii yéen ko la bu lay bu yeewal rey ko mu ñu yéen kon bokk na ci ñi gën a rëy ci yoon bi ko bàyyee mooy xam saxaaba yi seen saal bokk na ci nga xam ne yoon bi ko bàyyee xam borom saxaaba yi sunna mooy nekk la nga nekk dëgg jaamu yàlla ba xëy dee ci mu nekk la yàlla bi nekkoon yéen yàlla bi nee na man amila amalan lay sa amee asuratu wa rab la ngay def bu dee saa yi gën amoo ko jël loolu la ko jël man ahdat bi amina haada ma yëg ko ku def ci sunu mbir ñi ci sax ci bopp loolu la koy jël mbokk yi ñu ñaan suñu borom yàlla yàlla boole ñu musal ñu suñu borom baaxee ak suñu borom yàlla yàlla xiirtal ñu suñu te ñu mën di xaarandi yàlla yàlla dëkk ko ñu am laata lay leen xamalam jéego toog jéego te yàlla yàlla boole ñu ci keppaaw ak keppaaw boo ngi wax yàlla yàlla yàlla dafa ñu soog ci dunya wala axira rabbana atina fi dunya hasanatan wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد